jigéen góor def demande way jigéen moy def offre l'essentiel moy bu mu gonfler facture gourmay góor def demande mais jigéen moy def offre l'essentiel moy bu mu gonfler facture xam nga lutax sunu borom waxinam daf dul bokk ak sunu waxin ñun maanaam baatu almawaddatu wa rahma li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma gis nga diggante boobu ku ko jàng di nga dégg lu bare maanaam ñun ci sunu langage surtout en tant que sénégalais maa koy nettali soxna si mooree bu bëgg a dañoo gaaw ci yaa nobaate bu góor defee yenn yi ci wàllu soxnaam walla mu wax yenn yi ci wàllu soxnaam ñu ko yaa nobaate waaye noonu lañ koy waxee ak seen moroomu jigéen motax nobaté بعتهور parce que cofeelu nit ci nit kenen waru ko xam cofeel deug deug deug kiko mom rek a ko wara xam te moy al mawadda al hubb dafa late waaw hubb dafa late motax yi ci aju yépit day late bu dé bala nga dem ci soxna ci ci fleuriste bi wut fa wut fa aw say li nga koy indil ca mbedd ma la jóge ah daw jaar fii ci discothèque bi jënd fa as disque wala as cassette. maintenant je t'aime moi non plus ngay def nii rek <laughs> ah maa ngi koy gis bërki démb ci euh, anniversaire u Jacques Brel bi ndeysaan ñu koy wane na ne ma quitte nga gis ñoo xam ne ñu ngi naan nii ndeysaan rangoñ yi wadd yu kenn xamul ndeysaan mi fekk na cofeel du late nobel nag mooy late al mooy mooy nobel day late mais xam nga lan moo bon mooy ki nga bëggagul ki nga bëggagul mu naw la nga bëgg ko mu jëppi la boobu jara bàyyi xel ki nga xam ni bi nga ko bëggagul daf laa naw waaye bi nga ko bëggee ci biir mbëggeel gi jëppi na la fi ndax itam mbëggeel bu fekkee ni koo gis wax ko ko waay sarama ñaanal ma ci eh, sama góor gi ñaanal ma ci loo am joxe lam boo am joxe jaaro boo am joxe fu ne nga joxe fa ba takkatoo dara ndax ñaanal ma ci sama góor gi te góor gi yow rek moomuloo ko ku ne nga dem seeti ko ah seen góor gi waay waay jàppale leen ma ci waay daal di fecc fii dem jëndi Lagos dem lu ne jàppale leen ma ci góor gi eh, dugg fu ne ku nekki nga woo ko bindal ma fii bindal ma fii dana bañ sama loxo feeñ bi mu la xamagul nawoon na la bi nga ko bëggee jéppi na la parce que al jur stabilité gis nga nit boo ko soppi te muy dëgg yàlla dafay rof ci yow stabilité dara du la yëngal bu tax am na ñoo xam ne ne seen jëkkër nopp téeméeri junne jigéen du leen déranger parce que am na lu leen sécuriser lu tax dara du leen déranger raxma ba soog a ñëw nag protéger leen moo tax boo bëggee nit te stable loo bëgg nit te amuloo euh, sécurité lu ñëw nga tiit booba seetaatal cofeel ba am na lu jarax parce que alalu yàlla wa alqaytu alayka mahabbatan minni alalu yàlla waaw loolooy tax rek